alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain wa man tabiahum bisaan ila yawmi ddin allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila ibadallah qad walla ramadanu wa walla bi durusihi almustafida walmufida lil umma jaa wa walla wa taraka fiina duruusan ala saaimin an yaquumu bi haadihi duruus li istiqbaalihi fi sana alxaadima incha allah bokk yi ñu àndoon ñëpp sant suñu borom alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin weeru koor delsi na fekk nu fi te bi mu delsee am na ñu fi fekkut ñenn ñaa nga ci hôpitaux yi tëdd ca seeni lal yal yàlla saafara leen ñenn ña tukki nañu yàlla ñibbisi ak jàmm ñi des ñoom dañ leen a denc ci biir suuf ñu ñuy xaareeli yal na yàlla yërëm leen te bàyyi ñu fi ba ci kanam koor ñëwati na buy dem bàyyi fi yim fiy bàyyi ndax subhanahu wa dafa yebaloon ku ñu wax Muhammad ginnaaw yàlla moo fi gën a mat yàlla yónni ko ne ko demal nga wax ak maag ñoom ni lii laa wax ak léeg lii lii laa bañ ak léeg lii yal na ko yàlla fayal xeet wi dafa bokkoon ci mu indi nag weeru koor woor ko nag ànd koog ak nit ñu bokk di ko woor mu jàngal leen nu ñuy woore mu jàngal leen nu ñuy woore bu ñu séentoo weer wi séen ko mu ne acca koor gi tàmbali na ñu daldi di naafile ci guddi gi mbokk ñu daldi di naafile ci guddi gi ndax bu subaa ñu woor bés bi bés bu ne dañ koy naafilaal door koo woor bu nu tëddee ba guddi mu ne jóg leen ngeen xëdd yonent bi nee na jóg leen ngeen xëdd waaw ñu ne ko ha mu ne xëddu kooru chrétien yi ak kooru musulman yi musulman yi xëdd moo leen wuutale ku xëddul rekk sa koor niroog seen koor day leen xëdd léeg-léeg gis koo xam ne kii moom pour moom xëdd pour lekk la te moom xiifut fekk na sunna si yonent bi la ndax dafa bëgg nu woore ni nga xam ne nun lañ war a woore bu ko defee koor gi mën a def ci ñun benn impact wala ay impact yu am solo soo ko wóorewut ni mu ko doon woore nag doo ko mën a ame ni mu ko doon amee léeg-léeg mën a jigéen ñi xàmmee nañu sombi ak ñànkatan kon bu yonent bi togguloo sombi ku ñànkatan bokkoo kum togguloo ñànkatan boo sombee ko loolu ñu tuddee sunna lu am solo la bu ñu xëddee ba set ah, bu ñu xëddee ba noppi toog nag cinquante aaya wala dix-huit minutes ñu door a salaatu noonu la ko doon jàngale mu tax su boobaa di lekk ba dégg asalaatu xamile na mu jaaduwut ndax day tax doo woore ni mu doon woore te soo wóorewut ni mu doon woore koor gi du def ci yow jeexantal bi war a def ci yow docteur bu la waxee naanal garab benn bu suba benn midi benn ngoon boo leen boole ñoom ñett naan ko gaañu ni mu ko waxee rek nga koy defee bu julli fajar jotee nga julli fajar bu julli suba jotee nga julli suba boo xëyee xëy ci suba liggéey wooral sa làmmiñ wooral say bët wooral say cër baar jot nga julli dem ci jàkk ji déglu tafsir dem ci conférence ba waaw bu fekkee am nga jot yàgg moom ba seen nga julli continuer noonu waaw ba timis jot ba timis jot nga jël sa tàndarma ne bismillah allahuma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu faghfir lii maa xaddamtu wa maa axartu cheikh sa tàndarma naan tuuti sa ndox si tàng julli timis te bañ koo def ni kuy ndékki jënd mburu def ci beurre chocolat mayonnaise mu lu ne nga def ko ci ci mburu mi lu xew mel ni yow dañ na la woon fajal xiif bi gaaw nga ne ci mbur non dangay lekk sa tàndarma naan tuuti ndox su tàng julli timis bi jotee nga reer waaye bëgg fee ndékki ah après reer maanaam li la daf li la raw ci bés bi yëpp nga def ko ci du noonu léegi nag noonu ko yonent doon defee alayhi salaatu salaam boo ko defee noonu soo woree rek yëg ni dangaa ngaa bu koor gi jeex rek yow da nga yëg ni da ngaa woroon soo ko defut noonu nag mën ngaa wari doon ki nga doon avant koor gi waaw mën ngaa wari rek dellu doon ki nga doonoon avant koor gi te avant koor gi am na koo doonoon pendant koor gi nga am koo doon mais après koor gi na am koo doon li koy waral rek mooy nga defee ko nam ko doon defee yàlla nun yàlla dimbale ba ñu di ko defee nam ko doon defee aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimin alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah intaha chahru ramadan chahru mubarak wala tantahi al ibadatu wala tantahi al ibadatu nahnu fi istiqbali ayaami alxaj wa fi istiqbali iid al adha wa baynahuma salawat wa siyaam wa ma ila dalika min ibadati laahi subhanahu wa taala mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk seen ak seen njaboot yàlla na ngeen fekki déwén nu fekke ko waaw yàlla na ngeen fekki déwén nu fekke ko koor gi yàlla bu mu doon suñu darañel koor yàlla nañ wooraat wooraat di woor rek ba ñu ñëpp nu màggat weeru koor moo dem waaye jaamu yàlla di demut nanu fexe nu ñépp ba gunge koor gi juróom benni fan góor ak jigéen bu nu noppaloo bu nu noppaloo bu nu neexee noppalu une semaine mbaa deux semaines l'essentiel na nekk ci biir korite wi juróom benni fan ki yàlla yónni woon yàlla na ko yàlla fayal man xaw ma sax lu la ñuy wax am déet waaye daal yàlla na ko yàlla fayal nee na boo wooree weeru koor teg ca juróom benn fan gungee ko ko woor nga at mi yépp waaw boo wooree trente jours fois dix am nga trois cents jours am déet nga woor 6 fois 10 am nga 60 muy 360 te at mi 365 jours la allahu akbar ah mbokk yi noonu góorgóorlu gunge weer bi li ëpp ci senegal nag jigéen ñee koy gunge ndax dañ koy fayaalee seen koor ñoom it nag koor gi kenn wax la fay ko léegi-léegi bu la neexee dem ba baraxlu nga fay sa koor waaye gunge gi moom na nekk ci biir shawaal ñoo ngi dëgmal nag geneen jaam yàlla gu tudd tabaski geneen jaam yàlla gu tudd aj waaye jaam yàlla gu nekk nag daa am lu tax moom mu ñëw gi ñu nekk nag bi nu nekkee suñ tukki bële ca bitim réew genn gone dafa ma faa laaj waaw ah, ustaas lu tax ñuy woor loolu la ma laaj ma ne ko yàlla nee na daf bëgg ñu am jom ma gis mu kontaan xëy na réponse ba da koo convaincre da ko da ko da ko satisfaire waaye daal gis naa mu kontaan waaye loolu nag la mu am sunu borom daf ne laalakum tattaquun dama bëgg ngeen am jom moo tax bi ñu wooree ba wori muy seet nag ba xam am nañ jomam déet mun nañu bu fekkee am ngeen jom ti jële ko ci koor gi wala taakulu amwaalakum baynakum bil yi bu leen lekkati alali jàmbur neena ko am jom du lekk alali jàmbur hmm? te ci suñu gox goxaan yii terrain yeeg suuf yi nit a ngi fi lekk alali jàmbur ci terrain bu moom mu defi pexe ba teg loxoom ca terrain ba gën koo kowe wa tuddloo bi ilal xukkaam tax terrain ba ñu moomale la ko te moomoo ko ñu doxalub diir ki moomoon terrain bi dem ci benn terrain bu ñu wax xabru di la fa xaar benn terrain bu rëy la fa la gaañu tëdd am na fii ci dëkk bi am na yoof ki moomoon terrain bi dem ca terrain booba tëdd fa nag di xaar ki nangu woon terrain bi moo xam ñaari at la moo xam juróomi at la moo xam fukki at benn bis nga faatu yow mi nangu woon terrain waa ji ñëw fekk ko ci terrain bi mu nekk say bokk gasum pax moo xam nag fu mu tëdd moom peut-être mën naa tëdd fële yow nga tëdd fii waaye dal yéen a bokk tëdd ci benn terrain bu tudd ay armeel mu jël appartement bu tudd bàmmeel nga jël appartement bu tudd bàmmeel <laughs> allahu akbar sunu borom nee na ku am ku am jom ci koor gi duutoo jéem a lekk mukk yëfi jàmbur ndax ki nga lekk yëfam bisi ngi ñëw ñu denc ko ci benn terrain bis ba ñëw ñu denc la yéen ñaar ñëpp ngeen bokk benn terrain bokk nu ñu leen robee bokk nu ñu leen jullee loo ko ëpp ëpp doole yéen ko tolloole léegi nag cey bu dekk jotee mun na ñoxeet nga ne ñoxeet sunu borom laaj dossier ba su fekkee mairie bi ñoo ko doon attee mu leen kaay leen taxaw bu fekkee commune bee ko doon atte kaay leen taxaw bu fekkee àggoon na tribunal kaay leen taxaw bu fekkee magistrat yi jàppoon nañ ci kaay leen taxaw bu fekkee bu fekkee bu fekkee képp ko ci jàpp kaay leen taxaw ba ca procureur ba ca juge ba ba ca ba ca avocat ba ko doon ba ko doon défendre suñu borom taxawal ñëpp yawma tubla saraayir allahu akbar daane saawaay yow noo amee woon teere bi mu ne man diwoo ma ko jaay defaloon na may këyit defaloon na ma nangam këyit yaa ngi nii ñu ne mooru ko jën ak yow noo def ba am moom teer ak terrain bi mbokk yi ñaar ñi mënuñoo bokk lay wu ay tomb yu bari nag fukki tomb la ñett yoo xam ne sunu borom ne ku woor ba wori jom yooyu nga war a am benn ngi nii mooy duutoo mën a lekk alali jàmbur hmm? man de su ma àndeek ñoom Cheikh jeg ñii di di tukki jenn waaye làmb poosam génn ci ñaari junni ne ma jënd ci essence laaj leen ci station ba laay taxaw ne ko solal ma ci essence dix nga ma jox dix mille laa ci sol lu tax parce que joxu góoma xaalis bi mayu góoma ko boo ma ko mayoon da nga naan ma am rek te ne cel ma defee ko lu ma neex waaye jëndee ko essence sama xaalis bi jënde ko essence lu ma koy jënde essence lekk àll jàmbur baaxut nan ko jàng ci koor gi def ci jom yàlla xam ne ne dëkk bi fekkoon kenn du lekk àll jàmbur kon xale yi am nañu liggéey Hmm? jigéen ñi sëy kër yi neex waaye loona kopp-kopp rek jën waay na ko fuuf ba rek démb lañ dégg jënn waay joo xam ne dañu ne jël na ci kër nit ab milliard xaw ma dëgg la xaw ma du dëgg waaye dégg naa ko milliard ci kër yan yàlla boole dimbali ma jeexal ci ñi ngi jëm ci at mu ñuy wax 2024 ak séegul yàlla ñuy fekk nag buy dem yàlla ñu fi bàyyi nit ñaa ngi tàmbalee samp seen bopp ne dañoo bëgg a nekk ay candidat ndax ñu dénk leen réew mi ku ci ne nee na moo ko mën a yor ku ci ne nee na moo ko mën a yor ñun ñii nag la yàllay laaj bu ëllëgee ku ngeen ko joxoon fala nasalanna lasina ursila ilayhim wala nasalanna al mursalina sunu boroom ñun ñii lay laaj réew mi 2024 ku ngeen ko jox loolu nag jarul coow jarul xulo jarul demi meeting ab julit du du temps am waaye nag jar na nga dem fu ñuy bindoo nga bindu am dentité am kartu sañawate a bis bu ñëwee nga ne yàlla kii laa dénk réew mi te dem toog te bu leen defe ne wate kum neex toog kum neex dem wate ji déedéet wate day farata wate day farata ni nga farataale koor gi koor ko nun ngay farataale tànn njiit bi yonent bi génnee àdduna am na trois jours dencuñu ko ndax dañuy tànn njiit door koo denc wala taktumu shahada suñu borom nee na bu leen nëbbu seede ngeen baal ma ci guddal gi yàlla nañu yàlla boole nangul yàlla ñu bokk fekk déwén mag ngi jàkk ji ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal baax a baax ndax taxawaay ci jàkk ji bët bu seede yéen a ngi ci ñi fiy julli seek ñi xam ñi fi julli seek nun ñëpp rek yàlla mi nu baaxe ba koor gi fekk nu fi mu baax nu ba nu woor ko yàlla na nu nangul te it kum nartal fay du la liggéeyloo allahumma si mardaana waq di xawaajana allahumma si mardaana waq di xawaajana allahumma si mardaana waq di xawaajana warham mawtaana allahumma in kaanu muhsinina fazid bi isaanihim wa in kaanu musiina fatajaawaz an siyaatihim allahumma akrim nusalahum wasihum madaxal waskin wasatal jinaani indi jawaar seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam allahuma laka sumna wa bika amanna wa alaska aftarna faghfir lana ma qaddamna wa ma axarna dahaba thamau wabtalat al uruqu wa thabata al ajru insha allah dahaba thamau wabtalat al uruqu wa thabata al ajru insha allah dahaba thamau wabtalat al uruqu wa thabata al ajru insha allah allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illallah walillahi alhamdu allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama salayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fi lalamin innaka hamidu majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin am na nag sunu benn yaayu daara boobu papa